Aïcha si suba teel bi. yaa ngi ci jàmm Pape. ay ayca ñu utali ëtt yu yi xool tey lan la ñu xëy fasal. Aïcha dañ koy tàmbalee euh, ci euh, journal bi nga xamante ni moo di enquête enquête nag lu mu wax moom mooy li xewoon assemblée nationale lan moo xewoon assemblée nationale mu ni dafa meloon ni xeex moo fa xewoon na euh, ñu ñëwaat ci lu nga xamante ne moom moo di. waxtaan ci diggante député yi ak ministre yi fa yi fa teewoon journal Le Populaire di ñu wax li nga xamante ni moom la Antoine Diome euh, wax kii di Ousmane Sonko ak Guy Marius Sagna euh, mu ni leen yéen da ngeen bëgg a génne ndaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk seeni kër euh, te loolu tegoo leen ko fenn journal bi tamit mu ngi ñëwaat ci lu nga xamante ni Adji Sarr tontu na ko. ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko ak ay soxnaama di waxaale ci li xew diggante Yewwi Askan Wi ak Taxawu Sénégal ni suñu moytuwul euh, ñoom dinañu taqalikoo ñu dem ci beneen xibaar di Sud Quotidien Sud Quotidien du ñu xamal ne ci Assemblée nationale Amadou Ba moom mu ngay dëfal député yi ci lu soxal élection Euh, présidentielle yu 2024 yi nee na lépp dina jaar yoon ci li nga xamante ni moo soxal kandidaa yi nga xamante ni ñoo war a bokk ci élection yi tamit nee na lépp dina jaar yoon journal bi mu ngi ñëwaat ci lu nga xamante ni euh, moom moo nekk diggante Yewwi Askan Wi ak taxawu Sénégal di wax ni Yewwi Wi buggul dem dialogue tey buggul dem dialogue ëllëg ñu dem ci beneen euh, xibaar di l'observateur l'observateur mu ngi ñëw ci laaj ak tontu yi nga xamante ne euh, moom moo doxoon diggante euh, député yi ak ñi nga xamante ne ñoo di gouvernement bi di wax ne Abdou Karim Fofana ak Sidiki ba euh, tontu nañu ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko di waxaale tamit ci li nga xamante ni loolu moom la député yi yëkkati ay kaddu ñu jàll ci beneen journal di bés bi le jour. bés bi di ñëwaat ci lu nga xamante ne moo di euh, kaddu yi nga xamante ni Ismaïla Madior Fall daf ko yëkkati ci assemblée nationale ci wàllum procès bi euh, Ismaïla Madior Fall garde des Sceaux nee na lépp jaroon yoon amul lenn loo xamante ni juge yi respecté wuñu ko ci li nga xamante ni moo soxal état bi ak yoon nee na état bi dina gën a taxawaat euh, ngir wane dooleem. bu baax a baax ndaxte dëkk bi dañ fi bëgg a jaay doole te loolu du yoon ñu wax tamit ci beneen mbir bu nga xamante ni euh, moom moo soxal euh, les échos les échos di ñëwaat ci euh, lu nga xamante ni moo xew assemblée nationale muy wax ne ay xastaate ak ay yuuxuwaate ñoom moo amoon assemblée nationale ku ci mel ni biram Birame Souleye di wax ne rek milliards yu nga xamante ni Amadou Ba am na ko Amadou Ba tontu ko tontu bu saf sàpp Guy Marius Sagna aussi yëkkati fa ay kàddu jëmale ko ci Antoine Diome bi nga xamante ne moom nee na Antoine Diome moom mooy yëkkati fitna ci euh, li nga xamante ne moom mooy as biir assemblée nationale ñu jàll ci beneen euh, journal di lii quotidien lii quotidien tamit euh, wan ñu li nga xamante ni moo amoon biir assemblée nationale neenu nu yi moom kenn mënul fexe ba du jaar ci yoon ku ko wax moom mooy euh, amadu Ba ci biir journal bi ku mënti ñëw képp koo mën koo xamante ni euh, leneen ngay andi doo fexe ba élection yi du jaar yoon journal bi tamit di euh, fësal. Euh, li nga xamante ni moom mooy euh, remise du diplôme cinquantième promotion bi ci école bi tasu tasu xibaar bi di CESTI euh, promotion bi ñu tuddee ko Jean sa Diop ñu jàll ci beneen xibaar di témoin témoin tamit di ñu xamal li nga xamante ni moom moo xew assemblée nationale mu ne Amadou Ba moom dafay defal ñëpp ci li nga xamante ni moom moo soxal dëkk bi di fay wax ci mbirum élection di fay wax li nga xamante ni moo di wàllum sécurité di fay wax aussi li nga xamante ni moo jëm ci wàllum koom di wax aussi xalifa euh, Sall nga xamante ni ñoom di waa taxawu Sénégal dañoo yëkkati benn euh, communiqué di ko jëmle ñi nga xamante ne ñoom ñoo euh, seq diggante Yewwi Askan Wi su maytuwul rek ñoom dinañ génn lii nga xamante ne moo di ci biir coalition Yewwi Askan Wi l'info quotidien Euh, di jox kaddu ki nga xamante ni moo di Idrissa Seck Idrissa Seck nag moom dafa dem ci États-Unis laaxaani ki nga xamante ni moo di président Macky Sall ne dafay am lu muy rumandaat euh, te loolu suñu ko maytuwul rek euh, du baax ci li nga xamante ni moo di ci dëkk bi journal bi tamit fësal na ci xëtam bu njëkk ki nga xamante ni moo di Abdou Karim Fofana porte-parole gouvernement démb ci assemblée nationale moom tamit dafa dànkaafu ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko. ci Ousmane Sonko sax euh, la ñuy des nga xamante ne Walf Quotidien daf ko euh, wane euh, ne li nga xamante ni moom la waa PASTEF wane li nga xamante ne daal moom la waa PASTEF di joxe ci concerne li nga xamante ni moo jëm ci élection présidentielle yi waxaale fa ci xët bu njëkk diggante bu tas. Euh, entre Adji Sarr ak ki nga xamante ni moo di euh, Gabrielle ñu jàll ci journal bii di quotidien euh, quotidien mu ne état bi moom dafay taxaw temm ci li nga xamante ni moo di wàllum kaaraange réew mi premier ministre Amadou Ba ni ñi nga xamante ni ñooy takk deri ñoom dañoo professionnel ba pare ñoom mën nañu Euh, dékku euh, bépp métti métti boo xamante ne euh, askan wi ñi nga xam ne dañuy génn di ñaxtu mën nañ ko wane Antoine Diome tamit di fa wax ne dara du soppeeku dara du ñu ko maye ñun dinañ taxaw temm waxaale tamit li nga xamante ni Ismaïla Madior Fall wax na ko ci assemblée nationale bi ne yoon dina gën a dina gën a taxawaat fecc wane li nga xamante ni loolu la mës wane muy euh, joxe yoon euh, ba pare magistrat yi ñoom seen liggéey la ñuy def tribune ñoom jox nañ ki nga xamante ni moo di Bougane Gueye Dany Bougane Gueye Dany ni Macky Sall bugguñu dialogue tey bugguñu dialogue ëllëg euh, moom dafa war a repousser li nga xamante ne dafa bëgg a li nga xamante ni moo di élection yi ci ñaari at wax ni moom àndul ci man troisième mandat tey àndul ci troisième mandat ëllëg ci dialogue bi aussi même chose la dénoncer li nga xamante ni mooy jàpp gu ñu jàpp journaliste bi di Serigne Saliou Gueye ne dañ ko war a bàyyi journal bi di wax tamit li nga xamante ni mag Macky Sall jàmmarloo na ko ak opposition bi mu nekk benn jàmmarloo boo xam daanaka opposition la ak pouvoir journal bi aussi ñëwaat ci lu nga xamante ni moo di kaddu yi Abdou Karim Fofana porte-parole du gouvernement mu ne lu leen lu leen ko jaral rek lu leen ko jaral rek dinañ ko def ngir dëkk bi dellu si ci yoon L'As Quotidien ñoom ñu ngi fay wax kaddu yi nga xamante ne Sidiki Kaba maître des forces euh, ministre de forces armées Euh, wax na ko ak Abdou Abdou Karim Fofana porte du gouvernement ñoom ñi ñëwaat ci li nga xamante ni moo di kaaraange dëkk bi ak li nga xamante ni moo di yoon ne ñoom dañ ko war a euh, doxal ñi nga xamante ni ñoom ñoo yeewi askan wi euh, journal bi di wane ni rek ñoom dañu boycotté lii di dialogue politique bi waaj a am talaata bi di ñëw Soleil ñoom ñu ngi wax ci parti politique yu Sénégal journal bii di la Soleil ñuy wax ne am na ñetti téeméeri parti politique yoo xamante ni ñu ngi fii ci senegal te loolu benn sëmbaxloo lay niroo la di wax ne euh, di lister li nga xamante ne que ce soit mu nekk Abdou Diouf euh, Macky Sall wala Abdoulaye Wade ku nekk yan parti politique nga euh, andi ci biir li nga xamante ni moo di champ politique bi ndaxte parti politique bi journal bi rappelé ko dafay niru loo xamante ne politique gu Sénégal lu waay neex def lu waay neex wax ñu jàll ci beneen journal Libération Libération du ñu wax li nga xamante ni moo xew ci napp gi ak géej gi. di wax ni rek dafa am benn gaal boo xamante ni euh, dafa naroon suux ak ñoom dañ doon napp ci digg géej dal rek euh, ñu jeexal ko ak ñi nga xamante ni ñoo di stade euh, ci tàggat yaram stade ñu ngi fay wane ñi nga xamante ni ñoom ñooy joueurs yi nga xamante ni ñooy joué équipe nationale di wax ne rek ñoom ñoom ñooy toj li nga xamante ni moo di tugal Euh, ñeenti joueur lañu nag di euh, Michael Jacobs Crépin euh, Diatta Jackson ak ki nga xamante ne moo di Youssouf Sabali loolu rek Aïcha moo fi nekkoon ci yéenekaay yi tey ci suba teel bi am na solo Pape mbokk yi di leen ñaanal ngeen jàngat ko ci kaw jàmm ak salaam Pape Malick ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax alors comme chaque vendredi dañuy proposer un dossier tey ci lan la ñuy waxtaanee. bon tey nag euh, dañuy waxtaanee ci lu nga xamante ne moom moo xewoon fële ci tribunal muy euh, euh, mardi bi weesu nga xamante ne.